bébé Eva tey ñu daal di ñëw fii nga xam ne mooy initiative première initiative kaay ndogu match féminin ah. ñu gis la nga taxaw ci biti ba nuyoo ba pare ma laaj la lan moo tax footballoo. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sénégalais yi di leen nuyu yéen ñi xam ne lépp lu fi tas rek a ko tas surtout yow nga garaawee maa ngi lay nuyu bu baax di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga joxal ma ko sa naataango yi rek. ñu leen di nuyu bu baax baax bébé Eva ñu daal lay fekk ci match euh, kaay ndogu bi mais lan moo waral ñàkk joué bi te pourtant temps yi baa ngi fi joueur waajal ndogu damay waajal ndogu rëq laay bañ wala damm. Hmm. damay waajal ndogu. Hmm. te xale yii ma gis ñii ñun ci bi dañ ne woon match jigéen ak jigéen la ndekete dañoo juum ñun ñooy jigéen ñi mais ñun ñi ñuy fubalal ay góor lañ ndax góor la ñuy xeeñ fi mu ne nii ñii dañoo entraîné ba ceene man bi ma sinois bi rombee loolu ma gën a metti man bu ma nit bu ñuul dugaloon amul problème mais sinois spaghetti la ñuy dundee ñun ceebu jën. mais à chaque fois nag blanc dafay dominer sénégalais ci ci fànn yëpp nag ndax boo xoolee chaque jour dañuy favoriser teint clair yi. xale yi de ndekete feccum sabar rek lañ mën ak wërum sumb xale yii ma gis bébé baas moom bébé baas du ma ko wax ban heure a jot bébé baas jël groupe bi neng ko topp match bi match bi match bi ah dooragum nañ ñu de xanaa ñu xool lu yàlla di def rek ñu xaar tuuti xool lu yàlla di def waaw. Ah, kaay bi nag euh, sa ndogu bi nga war a préparer le premier incha allah nga am initiative woo ci kaay ndogu lan moo tax euh, genre collaboration bu ak euh, kaay ndogu. waaw kaay ndogu nag wax dëgg yàlla loolu famille la donc loolu moo moo jiitu parce que ñoom defoon nañ la 17. bébé Eva war a def lundi te le 30 am nañ beneen kaay ndogu donc lii nag ndogu bébé Eva la waaye dama ko jël teg ko ci loxo loxo organisation wu kaay ndogu bii parce que ku ne gis na seen liggéey donc ñu woote woon la 17 rond point Yoff mu fees dell donc ñu bokk ndey bokk baay nga amaale nga amaale occasion boo xam ne tey ko doon gis ci réseau yi rek te amoo woon sensu gis ko donc tey ñun ñu ngi bokk benn groupe ñu ngi gisante ci réunion yi donc ñu ñu di ci def nag liggéey bu doy waar man sama ndog yi yàlla xam na ko damay toog rek bañ ne ma jugal ñu dem fii jugal ñu def léegi ku ci mel ni bébé baas donc zimo yi ak ñoom lulu gaa yi daal donc jàpp nañ ci bu baax baax a baax a vraiment donc ñu leen di invité yéen ñëpp di invité sénégalais yi di invité ñëpp fële ca Gunaas euh, muy lënd bi incha allahu rabi spécial ndogu bébé Eva ànd ceeg waa Kaay Ndog. ndogu bi c'est la première fois nga koy def lan moo tax nga jël toll nii nga cee woo groupe te ku ko xam bébé Eva xamoon ko ak moom kese mu soulevé. waaw parce que groupe bi dañoo dañoo liggéey donc ñu suudeewu mu rafet pour man que. daaw tamit amoon naa groupe boo xam ne ñoo ko doon organiser groupe boobu bu ñu ñëwee fekk ci groupe bi donc day gën a neex parce que Euh, ndogu mooy li ma ciy wax rek mbiru mbiru suñu borom la te loo ci def Euh, yiw gi day yokk te yaakaar naa ne yow jëloo yiw pour yow kese da koy jël pour képp ku bokk ak bëgg a bokk ak yow yiw gi mooy li ma waxoon que daaw dama ko defoon amul benn numéro boo xam ne tey ku am yéene pour participer ci donc dugal foofu noonu xaalisam kon kooku dafa bëgg a bokk ak yow yiw bi donc ñoom tamit suñu bëggee bokk ak man yiw bi du leen xañ loolu dama leen di bàyyi ñoom tamit ñu ñëw organiser ko ba mu neex lépp nag dañuy wane que ne ñun ñoo ci parce que dañ naan kuy woote ndogu kaay leen ndogu yëfi yàlla la kon changement bu amee sa côté rek yaakaar na ni suñu borom mi ngi lay na euh, changement wàññee rek c'est parce que mooy loolu. kaay ma la nag gis nga joxe même bu dul ndogu joxe joxe moo amul tànk ginnaaw joxe moo amul tànk ginnaaw rawatina ndogu nit woor ba ngoon jot nga yëkkati benn tàndarma jox ko tey bu fekkee benn tàndarma nga commencé suba da ngay teg mis loolu far force la parce que amul tànk ginnaaw man daaw bi ma koy def barke alxuraanil karim bu ma juumul cinquante mille laa déparé woon moom laa yoroon mais après finalement da ngay jékki-jékki bébé Eva maa ci jàppee lii bébé Eva maa ci jàppee laa ba ren nga def ko te sa fukki dërëm dugg ci comprendre nga donc kon mooy mbiru yàlla la te ñun nag Alaaji Fàllu rek lañ yaakaar Fàllaw Buso rek lañ jël teg ko ci suñu kanam imagine toi ndogu lañ doon def que buñ defoon ndogu yi ba pare dañuy reer ku nekk ñibbi dé dé mu woo ma kooku nag dama naan sëñ Fàlloo ma ko yàqale Fàllaw Buso cax réew ma càmmiñal ma ree ma kunta nu ma mel moom la njóogu woo ma ne ma bébé yi laa gis ma ni ko waaw ñu waxtaan discuter mu ne ma guddi gi maa lay may ay cant donc noonu mu ci jàppee noonu la ci keneen ak keneen jàppee ku ci mel ne Aba no stress woo ne ma ndox yeeg meew yeeg lépp lu ci dem man maa la koy jox donc sëñ Fallou mi ngi mi ngi wane boppam daal ndax bi may bi may jàpp ndog yi dama koo jàpp ci une semaine ne Fallou Bousso rek laa ci àndal donc Fallou Bousso mi ngi may yàqale ak ay nit nag waaw. tey kan mooy invité d'honneur bi. ñëpp. am nañ ko si dëgg la mais mais ñëpp parce que ñun ñëpp a fa yàlla. Mm-hmm. ñun ñëpp a yem fa yàlla. mais nag ma ci jiital ñi nga xam ne gur guddi yi ñooy sama groupe muy gàlle gàlle gàlle no stress bi nga xam ne ñoom laa nekkal di liggéeyandoog ñoom liggéey bu rafet donc ñoom ñëpp ñu di ci jàpp ku ci mel ne Aba. papa ñànku day ñëw. ci biir day ñëw. ci loxo maanaam ci ci mel ne ay ñoom maam yi waaw maam maam démb dem nañ fa. démb dem nañ fa seeti ji nañ ko xamal nañ ñu ne nag du fi nekk du ko fi fekk mais yaayam dina ñëw ay employé am dinañ ñëw parce que daa daggoon billet ba pare war a voyage te moom sama xarit la waaw moom sama xarit la donc même bu ñëwul tamit ñoom ñëpp man invité naa ñëpp donc affice bi moom moo invité ñëpp parce que matewu ma pour di di yëgal ñëpp parce que mami xam naa ko nit ku baax la mais aw ma numéro am comprendre nga mais mooy li ma wax rek joxe ndogu moom ku ci ñëw rek sa bopp nga ñëwal du bébé Eva nga ñëwal parce que man tey ji mooy li ñuy wax rek bébé Eva kenn xamul laayen la kenn xamul murit la man bu ma waxul ci sëñ Fallou doo xam ne murit laa parce que fépp foo dem ci genre affaire yooyu demaloo fa kenn sa bopp nga fa demal parce que sëriñ ba fa nekk moom ngay dem pour ñaan pour mu may la gàmmu Tiwaawan damay dem Njaasaan damay dem leneen ak leneen damay dem parce que damay dem en tant que bébé Eva damay dem ngir sëriñ ba fa nekk ma ñaan donc ndogu tamit loolu la rek nañ ñëw ñu bokk yiw ci benn euh, njëkk ak instant bii nii coow li ni mu bëree ci bébé Eva benn instant la gën a neex ndogu yi tey la gën a neex xale yi dañuy coow ma yolleeku ndànk dugal affiche waaw man foofu laa nekk ndogu yi tey la gën a neex lan lan bad buzz la non man nekkuma foofu nag parce que man dama doon wax ni man man dama doon wax ni parmaris bu riis laa barke alxuraani karim kenn mësuma dégg ci détail kenn waxalante kenn mësuma ñi ma xamul man man des daf may dal damay toog ak nit mu ne ma bébé Eva ma ko naa mu ne ma baal ma ma ko lu tax mu ne ma parce que dama yàgg wax ci yow te xaw la man ku ma fréquenté bëgg ma barki Seydouna Muhammad ak sama bakkanu yaa parce que man dara ñoruma ci sama àddina man sama liggéey sama kër wàllum fréquentation yi ñuy wax ki ko xamul moo koy wax man fréquenté wu ma kenn man dew ma ci kenn mais nag am naa ay am jàmm parce que ku baax ñu bëgg la te nit du ñëw ci man ma toroxal la nit du ñëw ci man ma dàq la fekk jiw ma kenn dew ma ci kenn mais ku ñëw dama lay téye ku ñëw dama lay ak sama jikko suba boo ma wanee lenn loo xam ne xaw ma ko dama lay teg teg bu jekk te teewul dañuy continuer mu rafet parce que àddina amut solo waaw kon tey la ndogu yi gën a neex tey lay gën a riis suba déwén lañ koy gën a mën a def chaque at ci kàttanu yàlla bëgg naa di ko taxawal. mais tey ban message ñi nga xam ñoo nekk ci TikTok di yàqante te bébé Eva tamit porteur de voix la parce que gars yi jox nañ ko nopp ñu koy déglu. jaru ko waaw jaru ko parce que tey nañ ko xool ci nañ ko xool ci misaal bu gàtt rek sama ndogu daaw yi euh, yatasaay yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjanay si moo yëkkate ay pagu ndox jox ma ko boole ko xaalis bu bari dem ba ma tëllee maam loolu la ma njëkk wax bébé Eva sa xarit bi dem na ma ne ko noonu la ko suñu borom nammee donc bu ñu xoolee ci loolu pour man dara jaru ko et pourtant yata saay dara dalu ko de ci li ma dégg ndogg na ba pare daanu def euh, dugg néegam daanu def malaise donc addina dara jarul dara barke naa Mouhamed man de par personnel personnelle génn bi ma génn laa gën a réccu ci sama addina xam nga lan moo tax damaa génn ba pare boobu sama xol fees na mais dama génn ba pare xam ne carrément jaru ko jaru ko parce que àddina amut solo saa boo xëyee ki nga gër ki la gën a jege ki nga gën a xam mi ngi dem donc am na loo xam ne jaru ko nañu rafetalaat ànd yi nañu rafetalaat jikko yi nañu bokk ndey nañu bokk baay ànd fóoti bi ñuy ànd jaru ko amul sens nit ki boo ko bëggee wan ko ko boo ko wan ko ko mu xam fu mu yem ak yow donc nañ jàppalante ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te barke alxuraan àddina amut solo man nag weeru koor dañ doon wax ne dañuy tënk lépp mais damaa jàpp ne weeru bi am na bu rëcc te bu rëcc nag moo gën a vulgaire bi rëcc gën a vulgaire ndax tay bébé Eva la suba maam Ndiaye la ginnaaw suba kii la ah man nag réew mi li fi nekk nii xamatuma ko moom kay xanaa kilifa diine yeeg aada yi di yokku ñaan gi rek. mais bi nga génnee tey amul yenn kilifa yu ñëw waxal ak wala am ñu la mere wala dara. ah euh, contraire la nag parce que xam nga mooy li may wax nee naa ku miin sa xuloo dalay yab mais nit buñ la mës ta xam ci benn affaire bi mën nga am sens te barki Seydina Muhammad dégg naa ku nekk man dégg naa ku nekk ba ci biir néegu Serigne Fallou man. néegu sëñ Fallou laa wax ay sëtam yëkkati nañ seen téléphone woo ma ci lii donc daf ma jàngal daf ma wan ni que ni man waratuma def erreur sama addina man lu ndaw laa jàppee woon sama bopp mais ndekete man ñëpp a may bàyyi xel te ci sama problème bii laa ko xamee amul appel bu ma jotul ci àddina donc ma leen di jéggaluwaat bu baax a baax aw ma ludul di leen wax que ni maa ngi jéggalu ndax keroog ba ma jooyee am na ñu te xamuma leen keroog ba ma jooyee am na ñu ñoo xam ne juruñu ma donc ñu def ko ngir man démb benn xale bi ma woo xale bi ma woo huit ans barke alxuraani karim day wax ba may jooyaat yaayam ne ma ba nga jooyee daa fanaanee jooy ba bërsët donc loolu noonu nga teg ko ay nit te xamuñu la mënu ma wax lu dul maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu sénégalais yëpp te di leen wax ne dootul amati naqar bu ma mënti am ci sama àddina dinaa ko garder pour man mais sorti dootul amati. mais wax lu am importance da ngay bégale te yow doo bég. waaw bëri na ci ñun nag du man kese de bari na ci ñun ñi ci ëpp ci ñi ñuy bégale béguñu te gën a baax. ñun ñoo gën a baax barke Seydina Muhammad man mën naa dóor sama loxo ci kaamil ne maa gën a baax musuma fekkee fu nit di souffrir eh. musuma fekkee fu nit amee lu ko naqari fu nit amee lu ko métti taxawu naa ko te man bu ma amee lu ma métti man kese sama bopp rek laay gis loolu mooy ñoo ngi bëggale te bëgguñu et pourtant yow boo wéetoon léegi nii da ngay dem zappe yaa xam abaa ngay jàpp yaa xam ñànku ngay jàpp da nga fay fekk bébé Eva benn xaste bi muy xas dukkure wala bi muy xas baay daf lay neex ba nga reetaan et pourtant man bëgguma yow moment ba nga may seetaan man ngi tëdd di jooy ñoo gën a sonn waaye lépp dañ koy sante suñu borom ndax ñoo opté woon métier bi ñun ñoo ko opté woon ñoo fi bàyyi lépp ñu dóor ñu ci génnee ñu ci def ñu ci lépp ñu opté ko donc tey buñ ci amee loo xam ne suñuy morom nekk nañ ci wala ñu jiituñu te amuñu ko dañ koy sante yàlla waaw maa ngi santaat yàlla bu baax a baax di leen jaajëfal di nuyu di leen nuyu yéen ñëpp donte bañoon naa ko nga forcé ma ko nee naa la am nga gàllaaj mais gëmoo ko ay gàllaaj kese ngeen ndax lu ma bañ rek faw faw ma nangul leen ko waaw di leen jéggaluwaat di leen jéggaluwaat di leen jéggaluwaat bu baax a baax a baax leen wax ne nañ ma baal donc parce que li fi amoon neexu ma mais amaana noonu la ko suñu borom tuddee woon donc maa ngi ciy jéggaluwaat bu baaxa a baax képp ko xam ne nag bëgg na gis Bébé Eva wala artiste boo bëgg a gis maa ngi lay invité lundi incha allahu rabbi fële ca Gunaas di sama kër yaay ak ñiy expliqué tamit naan demal nga jege sa yaay man soreewu ma ak sama yaay wa non ci àddina man sama yaay laa bëgg sama yaay laa bëgg man sama yaay ci àddina dama am ak moom problème te nëbbuwuma ak moom dara it ñi naan demal nga jege sa yaay it xëy na dañoo comprendreul parce que wax naa ko am na ci ñoo xam ne tamit euh, parce que live la man xaw ma sax li ma doon sa loxo sa yaay mu ñaanal la da ngay tourné ci sa papa mu ñaanal la mais bu ñu nekkul xamuñu ba xam sama kër papa laa nekk xamuñu parce que sama vie xamuñu ci dara te sama vie du ma toog ci internet bi di ko exposé donc ñu naan demal nga jege sa yaay réer nañ man musuma sori sama yaay barki Serigne Fall waat ndax feebar bi may feebar man man doomu yaay laa du ma doom buy sori yaayam te lu ma liggéey moo ko lekk jërëjëf merci beaucoup